ay dàllam jóg dem yoonam kenn mayeloowul imam buy dund sharia ci lislaam takk juróomi jabar bu loo bu imam laajee yii nag ba mu wér est-ce ndaw si nekkul ci idday jàmbur est-ce que fase wuñ ko mu jàpp idda parce que bu ñu la fasee ngay jàpp idda kenn waru laa maye te sa idda jeexul ndaw si jàppul idda non ndaw si ëmbul noonoo waa ji amul ñeenti jabar non non mhm. ana kiy ñaan mi ngi nii mhm. ana kiy maye mi ngi nii ana can gi can gaa ngi nii mhm. ana mbokk yi ñu ngi nii ñu xutba kiy kiy ñaan tàllal loxoom jàng fatiha salaatul fatiha wala salaatu bi mu mën salaatu ala nabi ki koy may jàng fatiha jàng salaatu ala nabi may ñaan may nanu la imam xutba ñu fas sëy bi ni la ñuy takkee sëy ci lislaam mais feetu yeeg yooyu fuddan yeeg yooyu vey bi yooyu yëpp bokku ci ba ci yi ñuy ah, def buñ ne mais dara nekku ci. mais mais baaxul parce que bu ñu ne suba lañ lay may jabar. Hmm. nga gis ndaw si sol ay lin ay yére fanaanukaay yooyu. Hmm. yor ay manq hmm. naan dañuy célébrer lu ñëwagul. loolu dara nekkul ci mais yiwul Pape jamono bi ñu lay may jabar li lislaam bëggoon mooy yéen ñaar ñëpp ngeen ñëw toog ñu wax leen li ngeen di dugg mooy lan. yaa ngi dugg ci loo xam ne nag. mais mais ñoom ñaar duñ koy fekkee. Euh, d'habitude fii Sénégal bu ñuy dee takk sëy ñaar ñi ñuy takk sax duñ ko fekkee xalaatuñ ko sax ndaw saa nga ca salon ba di cap ndaw si day nekk salon ku góor ki ñu ne la da ngay tekki sa gañoo xaw ma toog da sol yére a sol tubéy waaw ba ci loolu du charia ah loolu du charia non non rek aada bu ci gaa yi dugal rek mais aada bu baax la aada bu baax la parce que nag euh, mag ñi xam nga sëñ Fall dafa wax ko am solo sa góor gi hmm. dafa wax ni boo rombee ay xale ñu naan rëdd bi na teggil rek te naan xale yi moo gën a wóor. d'accord moo tax daal ci lislaam nii la ñuy takkee si jàkkaarloo yi nag bu buñ la mayee ba ay boori 6 heures ku mel ni benn jàtt sekk ñëw jàkkaarloo ñu woy benn day am bàkkaar <laughs> damay laajte rek jàkkaarloo yi moom nee na ma xam naa su may takkaat moom naa jàkkaarloo xew rëy fi lay baas baasu rëy. Sénégal Japon la tudd xaw Sénégal non yow booy takkaat man maay ñëw di la taggal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba guddi jot sallallahu alayhi tant bi ma lay waxtaanal ci Cheikhul Khadim macha allah ah, dugal la ci jazbul xuluub macha allah ah, eh, eh. lu Cheikhul Khadim wax yonent bi rek ma wax la ko incha allah kon dinaa ci bëgg ayca ñu dem ci deuxième question ak hashtag bii di midi plus eh, ci compte yi ñu am ci réseau euh, sociaux yi euh, on va lire beneen question très rapidement euh, qu'est-ce que l'homme doit donner Euh, est-ce est-ce que l'homme doit donner la main à une femme ndax góor war na nuyu jigéen loolu kay booy na suñuy nopp xanaa tey wax na ko ba sonn Pape An wax na ko ba sonn Hadj Ousmane lettre wax na ko ba dem waa léegi ñii li ñuy laaj yàlla baax na heureusement ba faalaa gi fi. <laughs> Pape nuyu jigéen. waaw baaxul xaram xaram. jigéen julalewul la lewul koo jox loxo. man su ma ko dee def daa xaraam. boo gisee keneen di ko defit daa xaraam. yow tax nga koy def oustaz. maa ngi ñëw pap moo tax ma joxe exemple ci sama bopp dama la ni man su ma dee nuyu jigéen. bul dépendre ci ni oustaz du Fall mi ngi nuyu jigéen rek dama ko maanaam nuyu jigéen dafa daga parce que yenn saa yi nga gis ku ma ëpp daraja ëpp ma ëpp ma lépp. muy kilifa wala muy sëriñ nga gis mu def ko nga bëgg cee basé wu. or que du loolu. Hmm. nit mën na am bàkkaar yu sew yu muy rëcc di ko def mu nekk bàkkaaru boppam. mais bu mu tax mu daganal ko loo nekk te du dëgg xamalal nit ñi ne lii du dëgg nuyu jigéen daa xaraam wax nañu ni jël xalu safara bu xaw mais amul yëg-yëg ci jigéen bi mën nga koo nuyu Pape loolu du àtte bi loolu ah xoola ñi koy wax ñëpp dañuy tappale ay bu ma koy nuyu sentiruma jigéen góor laay sentiruma góor jigéen laay sentir rek nag yooyu Pape yenent bi même boo ci amul benn yëg xam nga lu mu wax parce ñun yamatuñu ci nuyoo dañuy accolade mais booboo gën a xaraam jabaru jàmbur nga koy accolade war nga dem jéggalu ji jëkkëram bàkkaar la bu dox sa digganteeg moom. kon de naaw daaw dëmb bi ma jul de rombee léegi akolaat naa ko ñaar fii ñaar fii muy kaat daaw dëmb moom naa ko woo tey ala loolu mooy loolu mooy yoon bi boo akolaatee jàmbooru jàmbur dem jébbalu jëkkëram tey dinaa dem NVA <laughs> nouvelle valeur xaw ma de la voiture fii jaay oto yi di ci daaw dëmb jabar ji laa akolaat kaat. yow joxe loxo rek nekk bàkkaar nga akolaat kon xanaa akolaat double bàkkaar la <laughs> subhanallah yàlla bëri na yërmande dinaa baalu ji dawda te dëkkay sixfaar rek astaghfirullah falaa ko jàpp rek astaghfirullah rek bu dul jeex <laughs> mais dafa xaram nuyu jigéen moom baaxul dafa xaram d'accord alaaj pap ci lislaam d'accord wax na nu ni jël xalu safara ba mu tàng ñu teg ko sa loxo hmm. mu lay lakk di la lakk di la lakk ba fay ci sa loxo moo gën a sedd bàkkaar nuyu jigéen non. dafa xaram pap réew mi li fi nekk te xaram nañ ko wax. de. parce que suñuy dépense yàlla ñu koy jox. Mhm. bul bëgg lu neex nit ñi wala nga bëgg lu neex ki lay seetaan ba doo ko wax dëgg. Mhm. dëgg rek. dëgg la ku lay bëgg bëgg la ci. ku lay bañ bañ la ci parce que nag yàllaa yor ñëpp. voilà je pense que question boobu leer na. Euh, beneen question ci ndimbalu euh, El Hadj Vieux Diouf quel est l'avis de l'islam sur l'avortement volontaire mooy yàq biir defe naa. si allahu akbar ah yàq biir nag oustaz yenn saa yi wér gu yaram sa santé mooy tax peut-être borom xam-xam yi ne ñuy yàq biir bi. Eh, alaaji Pape am na. bari na Sénégal yu ñuy def di ko sàggane jàppewuñu ko ne dañoo rey nit te rey nit la ëmb ba am deux mois wala ëmb ba am trois mois. nit ñëw ne la 500000 a ngi nii yàqal ëmb bi parce que bu ëmb bi yàquwul gàcce jàpp ma. Ah. waaw imagineel gàcce gi ngay ragal ak bàkkaar di la topp. bu la ci gën a fan ngay layoo bakkan boobu ëllëg yow mal xiyaam alaaji Pape. waaw waaye dañu jàpp ni bàkkaar du feeñ te gàcce moom ala kulli yàlla dootoo xaj ci dootoo dootoo xaj. mais gàcce gàcce gi Pape ci àdduna la yam te boo tuubee yàlla mën na laa jéggal. dëgg la mais imagineel yàq biir nit ñi nag jàpp nañ ne yàq biir moom mooy ëmb ba am deux mois rek nga doog a yàq. Hmm. ba ci pilil bi nga jël bi nga defee rapport ba pare yàq biir la parce que boo bàyyi woon amaana nga ëmb. daa nga wax ni pilil bi. waaw dara newu ci nag oustaz. pilil dañ ko génne muy protéger nit ñi xaw ma nu mu tudd noonu la boo xaw ma <laughs> yooyu noonu ay faj la yàlla moo wàcce borom xam-xam yi ñoom boroom xam-xam yi génne ay garab ci ndimbalu suñu borom ni lii pour lii la. lii yàlla def ni kilalewul bu ko jege bay njaaloog moom muy dem sax bay naani pilil. wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa maqtan wa saa sabila yàlla nee na bul jege olof yi nee nañu kuy yërnu ñag bu yàggee nga tëb ñag yu ndaw yi ngay xeeb fóon ma mhm. nañ yam fii naa yëg sama bopp ndànk-ndànk du ko ci def man fii rek ma àgg waaye foo xamee yi innocent laa la jàppe woon <laughs> dañu war a tàggoo léegi Masaalikul Jinaan sëñ Bas. <laughs> damaa jaaxle. heureusement ba vendredi parce que loo dundul mënoo koo xam oustaz wala la ko nettali. heureusement ba vendredi damay dem màgg. macha allah <laughs> waaye di nga dellu si doo fa yàgg bu soobee yàlla <laughs> mais baaxul. yàq biir dafa xaraam ki nga yàq biir bi te doom ji judd. Mhm. ngir ragal gàcce taxamu ëllëg lu mu war a représenté mhm. yow respecteel ba bu juddoo it àq yi war sa digganteeg moom limite bi la lislaam limité sa digganteeg moom nga respecté ko mhm. mooy du la doon doo ko doon mais mais jarul gàcce jarul yàq biir dafa xaram mais comme par exemple ñi ñi yàq ba pare Euh, mën nañu jéggalu suñu borom. Bàkkaar moom pap mhm. suñu borom nee na. inna allaha yaghfiru zunuba jamian ok waxaat ni inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yashaa kon kon alhamdulilah. yàlla bari na yërmande te waxtu bu ko jaam tuubee jox ko boppam jéggalu mën na laa jéggal. très bien kon Baye Diouf voilà santal yàlla bu baax Diouf euh, ñu dem ci beneen question très rapidement 13h39 euh, euh, laataa ñu leen di bàyyeek sunu équipe yi nga xamante ni actuellement ñu nga fa Masalikul Jinaan xam naa bu ma fa jullee tey moom naa jaar ci boutique Bàjjan Soxna Fay bi en face Masalikul Jinaan ma ngi fay jaay ay toof yu baax ay brodeek ñoom seen Bàjjan Fay mu Papa Ali Guèye mu Alaaji Mbakki yu Fay Bàjjan Soxna Fay ñu ngi koy nuyu beneen question bi Thioro comment la prière naa wax nga ko léegi naka la ñuy jullee néew waaw moom laa jàngale sànq yaakaar naa bu doon mi ngi suivre émission bi mi ngi dégg question bi voilà euh, ni ñuy jullee néew wax naa ko léegi mhm. jullee néew alaaji pap ñeenti kabar la mhm. amul liqaam amul nodd mhm. nga dafa am julli yoo xam ne amul liqaam amul nodd lu mel ni julli tabaski lu mel ni julli korite imaam day ñëw rek allahu akbar kabar amul liqaam amul kabar jullee néew amul liqaam amul kabar ñeenti kàbbar la fatiha la imam di jàng ci benn kàbbar bi jàng fatiha euh, jàng fatiha julli ci yonent bi mhm. ñaanal néew bi mhm. bu fekkee góor la nga ni allahumma xfir lahu warhamhu mhm. yàlla yërëm ko te jéggal ko su fekkee jigéen la nga ni allahumma xfir laha warhamha yàlla yërëmal ko jigéen kii te jéggal ko te xam ni sa jaam la te bañ koo topp ci ay ñaawteefam nii la ñuy jullee néew mu ngoog defe naa loolu leer na ñu xool beneen question ak hashtag bi midi plus je pense que jeex na euh, maa ngi gis ku naan euh, kuy une fii kii se marie sachant qu'elle est enceinte qu'en dit l'islam euh, jigéen ju ñuy takk mu xam ni moom ëmb na lan la ci islaam wax. am na ñoo xamante ni bii. Mhm. dañuy gisante ba séqante ba ëmb am. Mhm. bu la ndaw si ne gisuma sama règle ci weer wii nga tiit. ne comme ni ngi ci janvier nañ ko takk février mhm. te yow xam nga ci sa conscience ne ndaw si daa ëmb moom tam xam na ni daa ëmb mhm. mais ngeen ragal mhm. ñu naan oustaz du Fall mi ci télé bi de moo biiral daf xam nga loolu loolu day rëy de dëgg la de nit ku nekk ni nga toll say say heurel noonu lay toll nit ku ne ni nga toll am na koo xam ni bu ëmbalee dañ naan nattu rek ndeysaan ak xale yi xam mais am na koo xam ni bu ëmbalee réew mépp ciy jot duñ ko ko baal dëgg la duñ ko ko baal ku ne ni nga toll noonu la sa defin di toll mm-hmm. mais bu fekkee da ngaa naxasaale naxtaan ba nu takkal la ko nga takk ko ci ëmb buñ ko yëgee dañ koy fas dañ koy tekki même bu fekkee ndaw si ëmb na te yëgu leen ko sax dañ koy tekki ci saa sa yëg nañ ni ëmb am na rek tas nañ say bi bu wasi ñu takkaat boo ko bëggee waaye bu fekkente ni bii daal ëmb nga. Hmm. di ko nëbb ñu dem ba ci biir. maire yi xool la ne nii ma koy gisee nii muy màccituñ ak tifleeg dafi yëf. Hmm. xam nga mair yi xam nañ ko ëmb. ñoo raw gynécologue yi ñoom da ngay toog ci ko <laughs> am na ay maire yoo xamante ni <laughs> comme ay gynécologue. mais Pape Sénégalais yi maandu wuñ. dëgg la de. yenn saa yi nit di sëy nga gëj koo gis di laaj waaw moom ëmbagul ba léegi. Hmm. pap nan la nit di duggee ci mariage yu jàmbur bay gëstu di laaj ndax ëmbagun na ba léegi. am nañu fit bi <laughs> wala ñu naan biir bi sori na. <laughs> ñu dem Masaalikul Jinaan bàyyi la nga tàggatoo yoonu jàmm la ñu lay ñaanal ndax yaa ngi wàcc umra incha allah. jërëjëf Alaaji Pape. Mm-hmm. xam naa. su ma demee màkk incha allahu taala euh, danaa taxaw ca raw du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal la benn cinq minutes boo xam ne moom uh-huh. euh, waa midi plus laa koy jox ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam baa xam ne bi ma jógee màkk la màkk tëj kenn musul gis loolu at ba ca topp dañ ne aj du am waaye namm naa fa lool sax boo demee daal woowaat ma ma ñëw su ma demee woowaat la nga ñëw alaaj incha allah incha allah yàlla nu yàlla defal tawfiq allahumma maa ngi ñaanal réew mi yëpp eh. ñaanal président Macky Sall eh, eh. yàlla na ko yàlla may gudd fan allahumma amin le ministre Moustapha Diop ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla barkeel allahumma amin ajaratu Marème Faye Sall mu baax mi mm-hmm. nga xam ni def lu baax dong la fi nekk alaaji Pape mm-hmm. yàlla na ko yàlla may wér allahumma amin ñaanal Adja Oumy Idrissa Gueye Oumy Gueye moom itam yàlla sàmm ko allahumma amin soxna Moumi Kebe suñu jigéenu bopp ñu ko fàtte ah, soxna Jee Asta Sare ca Amérique Abdoul Aziz Ala Ndiaye sunu xarit boobu nga xam ne moo ñu njëkk a yóbbu ci raw du yonente bi alayhi salaatu wasalaam moom itam ñaanal Baye Ndiaye ñaanal ñoom Chérif mm-hmm. ñoom Dia waa mm-hmm. l'amiral ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu mm-hmm. di leen ñaanal Alaaji Pape di nuyu mbooleem soppe boo xam ne yaa ngi jàkkaarloo woon ak télévision Futurs Médias nuyu Alhaaji Pape Diop Oustaz Omar Ndoye ñoom ñëpp sunu xarit yooyu duñu leen fàtte nuyu suñuy wayjur nuyu madame Fall euh, ñaanal ko moom itam yal na ko yàlla barkeel yàlla bu ma mujj incha <laughs> naan amin foofu dana am wujju de loolu moom pap kenn amaale wu bañaa am <laughs> mu yàlla na nu yàlla defal tawfiq alaaji pap amin ñu joxaat leen dig daje incha allah xam naa boo dellusee rek bu ma dellusee rek bu soobee yàlla alaaji pap ñun nag ñu ngi fi bis bu jot naa dellusi incha allah di bu 11h45 euh, jotee euh, bàjjan maam Mbenda euh, bàjjanu Nafi Diagne maamu Fàllu ak Jamila am na question bu mu laajte ndax di julli te xamoo ndax 4 la wala 3 rakk nan ngay def ba rectifier ko voilà xabla ak Warda xam naa dinañ ko jàngale fi lekk euh, àjjuma di ñëw euh, ci euh, télévision Futur Média mais ñu ngi ndokkeel ñëpp ku lim juum tabara gàkku ñu ngi koy ndokkeel bu baax Ndiaga Fall di nuyu itam alxalifa sunu xarit la Ami Mané Bijou Kébé voilà merci en tout cas Adama Sow ci Suisse yéen ñëpp ñu ngi bég daal ci cofeel gi ak ni ngeen àndee ak ñun ci télévision Futur Média gërëm El Hadj Vieux Diouf mi réalisé émission bi Corombaar Ndiaye mi ko coordonné Bouba Ndour mi 11h45 jotee di leen souhaiter euh, week-end bu neex ci télévision Futur Média jaaykatu cheveux yi sax ñu ngi laajte naka la ñuy def euh, ñoom euh, mais xam naa dinañu leen tontul seen question merci et à di bon week